kan moom nag ràññewoon nañ ko bu baax moo daal di sol ab robe avocat daal di défendre ki nga xam ne rek moo di Adji Sarr ci jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ko ak Ousmane Sonko mu doon ko tuumal lu jëm ci wàllum viol répétitif ak wàllu menace de mort moom Gabriel Kane moomee sax taxawoon na temm ne dafay xeexal ñi nga xam ne rek moo di soxna yi waaye dafa mel ni fu ñu toll nii nag moom euh, Gabriel Kane moomee ñu ngi ñuy xibaar na daal dañu ko daal di gàll ab mandat d'arrêt international maanaam fépp fu ñu ko mën a fekk rek nañu koo daal di teg loxo dellusiwaat ko fii ci diwaanu li nga xam ne moo di Sénégal daal ñu koy toppee nag waxaw guñu ko waaye daal ñu ngi njortees que ne lu jëm ci wàllum escroquerie ak yenn ci ay mbir la ñu koy daal di euh, toppee waaye ginnaaw xibaar boobee nga xam ne jot nañu ko daal di jàllale jëmale ko ci xarala yu bees yi moom nag jaare na également ci xarala yu bees yooyu moom soxna si di Kabil Kan di wéy rek daal di xamle que ne ñi nga xam ne ñu ngi koy daal di yéene mbir mi ni mel yenn daal di këpp seeni ab kaw waaye moom it nee na euh, combat bi nga xam ne mu ngi doon ko mëne combat la boo xam ne dawul ci yoota daf koy euh, daal di bu fekkoon ne amaana boo xam ne taxawaay bu mucc ayib lay daal di uh, doon uh, moom uh, soxna si di Gabrielle Kane yemul foofe waaye daal dina ñëwaat ne mbir yooyee moom nañ ko ci daal di li nga xam ne rek moo di génnee ba mu set wecc waaye nag nee na moom dawul tiinul mu ngi fii ci diwaanu Sénégal te sa ba ko justice soxla rek dina dem daal di wëy ji mu mel ne moor ñi nga xam ne dañu fi nekkoon ci régime clé du président Macky Sall am benn taxawaay bi ñi ngi wéy di défilé ca kanamu fi nga xam moo di fa mbaxana doone benn gis nañ docteur Nafissatou Diouf mu daal di woon convoqué ko moom ci la de xam rek moo di euh, Gabriel Kane la ñuy xibaar ne ab mandat d'arrêt la ñu ko dal di gàll ci ab kaw. waaw euh, mu nekk information boo xamante ni comme ni ñu ko déggee c'est pas parce que euh, dafay nekkoon am fu mu far wala am fu mu taxawee parce que le le premier ministre Ousmane moo waxoon que ni bu ñu jëlee li nga xamante ni moom mooy réew mi. du am vengeance mais li nga xamante ni moom mooy la justice dinañ ko def au nom du peuple ça veut dire que ni kon démb lan moo amoon muy benn justice boo xamante ni Euh, bu inéquitable la woon muy justice boo xamante ni dafa demee woon boor est-ce que nag tey loolu bu fekkee euh, voilà ñoom ñëw nañ ci li nga xamante ni moom mooy euh, à la mouvance présidentielle li ñu xaar ñoom mooy ñoom benn justice boo xamante ni bu équidistant la benn justice boo xamante ni dafay am benn traitement égal vis-à-vis en tout cas de la population du coup bu fekkante am na ci ñoo xamante ni peut-être justice dafa war a daal ci ñoom kenn ñenn ñi mën nañ am benn interprétation que ni voilà dañoo nekk bëgg a fayeku alors que ni la justice moom moo nekk délégué li nga xamante moom mooy ay prérogative dans un état normal aussi que mu dal la wala mu dal keneen lu ñu war a muy tant que justice ñu ngi koy rendre au nom peuple loolu kenn ku nekk si ñun war nga mën am fierté que ni carrément kat au moins sax justice mu ngi def li nga xamante moom mooy liggéeyam ban la amoon démb nag ak bu mu am tey peu importe bu mu si mën doon dañuy jël loolu ñu teg ko fële ju xoolaat

jeunes li ci am solo daal moom mooy bu ñu jéem a la justice comme benn instrument comme li nga xamante ni amoon na fi te loolu yaakaaruñ ko que muy ku far fii wala ku far fee sénégalais de tout bord boo defee loo xamante ni lu dul yoon la muy escroquerie muy lu si mën doon dañoo war a li nga xamante moom mooy justice yow li ci des nag mooy <laughs> démb am na noo xamante ni noonu la taxawee ñu dem ba un moment sax ñenn ñi jàpp ne dafa am ay sénégalais yoo xamante ni comme si duñu ni ñoom lay ciblé parce que loolu nag bu ñu personne ci régime ki nga xamante moom mooy le président sortant cette fois ci nag peut-être on tend vers peut-être benn justice boo xamante justice bu mucc ayib lay doon parce que loolu bokk na ci li nga xamante ni ay priorité la muy rendre la justice à ce que muy def li nga xamante moom mooy liggéeyam parce que nag dëkk bu fekkante ni justice bi dafa xaw a suuxe wax dëgg yàlla pour dëkk bi am jàmm wala pour dëkk bi mën a am benn euh, mën a dund en parce que lan dañ ko jox yenn euh, prérogative au détriment de yi nga xamante ni moom moo sooy su boobaa nag dafay indi li xamante ni moom mooy inégalité. en tout cas ci fàttali moom soxna Socé di Gabrielle Kane association bi nga xam ne jiite na ko euh, mooy association d'appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits ñu gën ko xam ci APROFES moom nag fi ñu toll ni daal euh, fi ñu jot nañ ko jot nañu xibaar que ne dañu ko daal di lancer ab mandat d'arrêt international moom nag ginnaaw gi jot na daal di amal ab réaction réaction boobee nee l'ancien défenseur d'Adji euh, a réagi à tous l'information sur le mandat d'arrêt me concernant et qui circule est vrai épargnez-moi donc les fausses émotions de rapace s'il vous plaît et si la prison est la récompense de mes combats de femme de mère j'irai donc avec une immense fierté euh, pour que pour que euh, pour que j'ai fait je ne regrette rien et mille fois je recommencerai mu doon ay kàddu yoo xam ne rek moom soxna si di Gabrielle kan jot na ko dal di yëkkati ci gàttal rek moom daal ne combat bi nga xam ne porté woon na ko mu soxal mbirum Adji Sarr moo tax ñu bëgg koo daal di singali moom amul dara loo xam ne rek dina ko cee daal di rëccu te bu fekkoon lu mu fas dina ko defaat te bu fekkee ne kaso googee la ko nar a eh, taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci mbirum Adji moomee moom noppi na te pare na également eh, pour daal di dem yemul foofee en attendant que cela aujourd'hui plus jamais je ne pas je ne me de suite mu doon ay kaddu yoo xam ne rek moom soxna sii di Gabrielle Kane jot na ko daal di yëkkati mu doon ab mbir boo xam ne dinañ wéy di ko daal di toppandi ba xam mbir fan lay daal di uh, mujj ñu ñëwaat ci lu soxal ki nga xam ne rek moo di Cheikh Omar Diagne moom nag ab ministre la nekk fële ci palais uh, présidentiel uh, moom it àdduna joxe na sax kàddoom gu njëkk jëmale ko ci wàllum li nga xam ne rek moo di wàllum fiscalité boobee moom professeur Cheikh nag jàpp ne daal ñi nga xam ne dañoo wër plateau yi di ngawti ngawti di wax ci wàllum fiscalité boobee dañoo war a di nopp noppi ndaxte ñooñee dañoo dal di sàcc li nga xam ne rek moo di moomeelu askan wi euh, ba tax na daal waratuñu toog sax naan nañ leen jàppale ak nañ leen dimbale te nguur gi daal warta am li nga xam ne moo di demi mesure ci taxawaay boobee nga xam ne am na ko jëmale ko ci wàllum fiscalité bi ñu ngi ñuy xibaar sax que ne euh, taxawaay boobee nga xam ne nguur gi am na ko jëmale ko ci wàllum fiscalité bi koppar gi nga xam ne rek jot nañu ko jël ci weer bi ñu ko daal di commencé ci weerum avril ak léegi toll na euh, ci mille cent vingt six virgule trois milliards de francs CFA ci bi ñu koy xayma nag ci wàllum pourcentage toll na cinquante trois trois virgule euh, deux euh, li nga xam ne rek euh, moo di pour cent mu doon ab taxawaay boo xam ne rek nguur gi boobaak léegi jot na ko daal am ab taxawaay ci wàllum fiscalité mu doon ay kàddu yoo xam ne moo moom ministre conseil bi di Cheikh Omar Diagne jot na ko daal yëkkati jëmale ko ci wàllum patron de presse yi. waaw mu nekk ay kàddu yoo xamante kàddu yu dëggu la kàddu yoo xamante aussi. Euh, loolu moo ko war parce que tant que ministre conseiller peut-être euh, ñenn ñi mën nañ jàpp ne xaw na am euh, arrogance et tout ça mais man gisuma loolu lu ma gis moom mooy Sénégal moo nekk dëkk boo xamante ni dafay lëj ngay lijjanti yow mi nekk pour lijjanti nga xam ne déjà dañ la war a saluer après yow yaa mujjee di nekk adversaire ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñenn ñi ma jàpp nañ ne tey euh, désordre moom moo amoon depuis 1960 ba presque mën naa ne euh, fin 2023 muy avant élection 2024 désordre boobu nag su nekkee dafa am peut ñu am benn régime boo xamante dañoo bëgg ñëw pour lijjanti li nga xamante moom mooy mbir mi muy remettre l'ordre dans le dafay am benn sacrifice boo xamante moom lay laaj apparemment lañ nga xamante ni moom mooy yenn détournement yi li fi amoon aussi ci peut-être xaw a am ba ñu mën la defal ay euh, peut-être ñu mën la pardonner say li nga xamante ni moom mooy fiscalité et tout ça loolu moom moo nekkatul loo xam dafay am léegi fi ñu toll mooy nga jege état wala nga ñàkk koo jege teewul la ngay fay li nga xamante ni moom mooy euh, en tout cas say taxes yu ni mel te boo déggee sax euh, professeur Cheikh Omar Diagne dem na ba ni bu fekkante ni jaay ko du caaf bi mais ki nga xam te dafay débrouiller ñoom ñoo mën dafay seen ay droit waxantuma laa nag yéen ñi nga xamante ni ay patron de de presse ngeen wala moo xam patron d'entreprise ngeen et tout ça ma jàpp tey nag tey bu fekkente ni euh, ki nga xamante ni benn sénégalais lam la wala benn citoyen lam daal moom la état di appliquer li nga xamante ni moom mooy yoon ci moom que ne ko kat da ngay fay lii da ngay fay lee moom mu mën cee tege di débrouiller ak li nga xamante ni moom mooy ay propre euh, moo gën a li a ndóolal parce que Ousmane Sonko waxoon na fi kani li ni moo jëm ci détournement ak mooy li fi nekk gas néew ñi nga xamante ñoom ñoo nekk nekkoon au sommet de l'état dañ koo pàccoo woon te loolu nag vraiment bu fekkante dañ ne ku làkk sàcc sàcc nga comme ñoom bu ñëwee aussi am loo xamante ni wan nañ ko nit ñi en avance muy déjà wan nañ nit ñi que ne ñoom ay nit ñu jub lañ ay nit ñu dëggu lañ bokk seen ay slogan et tout ça il faut ñu commencer lijjanti njuuj njaaj bi nga xamante ni amoon na fi bu ñu rombee loolu nag doo ko commencer nag poser li nga xamante ni moom mooy acte yi ñu yóbbu ci li nga xamante ni moom mooy le développement au vrai sens du terme mais actuellement vraiment dama jàpp ne tey il faut ñu amaat benn aménagement bu ñu def en ce qui concerne en tout cas les entreprises que ça soit PME muy petites et moyennes entreprises wala entreprises yi nga xamante ay entreprises yu mag lañ amaat beneen réorganisation bu mucc ayib boo xamante ni nga xam ne dañuy jël li ñuy tuddee euh, ay presse ak yu mel dañuy dem ci entreprises yëpp que ça soit même sax les entreprises étrangères yi nga dañ fa implanté wu ñu bokk di fay ay taxes comme économie amoo looy produire parce que da nekk benn pays importateur il faut nga profité ci peut li nga xamante moom mooy entreprise fa nekk pour mën di gagner yenn recettes yi waxuñu nag que ci entreprise ngay profité pour am loo gagner su boobaa taxes yi dafay metti mais dina am en tout cas benn tolérance boo xamante dina ci ñu mën adapté ak lu ni mel mais tolluñu foo xamante dañuy baale ay li nga xamante moom mooy te même sax Cheikh